Kees Ndangaan Kees Ndangaan o xeene a sipo me kam ngal ne Ndangaan jama guy gi Djilass guy doomu Djilass a ngoog Babou Soudan duubal bu jagle nag bu ci la sango doomu Djilass lama Babou Soudiane ndeysaan xëy kii mooy doomu Marfa ko kobi El Bandit baa ngi noonu presque El Bandit borom Moussa Thiaré ay ca ndeysaan ndeysaan kii ceeb su wàll la maa fee su wàll ceeb bu ay ca ceeb ba ngoog ndeysaan jën bu seeseen doomu lulu seeseen la jëlale ma Moussa Kaliñ l'ambassadeur de Mar nee na nee naa leen bëre jinne lay bëre ndeysaan sini bu barñee ngok lébu ba ngok l'avanceur de barñi jëlale mag doxin bi ndeysaan noppe bu sowal a ngok yow sowal noppe waaw waaw jëlale Mamed Diokh double moteur l'avanceur de Palmarin doomu Palmarin la day bëre nee naa nga gis ko o feskana ma frel to ten kaga lalta kaga gimo ame jox double moteur doomu champion nekk champion ndeysaan l'enfant chéri de Ndianda ngoog yaay Diouf borom Ndianda jilama mbotum noor borom caajaay el bandi brosa ngoog Moussa Kaling Jurbel jagle mooy ñëw noonu vraiment baabu fay na gay naa ko sapeur ilama oyal jinna Moustapha Ndubab Moustapha Ndubab jinna ngok jaglu yelema internet bin jam buy gi gitu, dobo jilas gitu. mom la doon wor ñol bu sana borom sa wal ñol sana ngi ni mbor ya ngay lagat mais mom tamit say mu ngi fu mu tok dina ñaf rek ciaw sa xir ñol le bandi le jola jege dit de ginderoga ñagin tur durwa